auzu billahi mina seytaani rajim way nii ya auzu sahabika wa mina seytaani rajim rabbi auzu bika min hamasaati sayatin wa auzu bika rabbi an yaxdirun ñu ngi ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké na fi yàggaat lool ànd ak wér waaye di ko ñaanal bu baax mbenda joxu nay ba sala penda mi des si ngaraaf ñu gën ko xam ci sëñ Mouhamadou Fall mbenda naaru maam Khady Niang xalifa sendal de Baye Fall yàlla na fi yàgg lool ànd ak wér buñ tollee ci waxtu wi nag xel yépp dem ci Thiès mooy gàmm gi nga xamante ni njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall yépp rek incha allahu rabbi fas nañ faa gàmmoo la ko dalee sëriñ Amdi Fall naaru maam xariñang ba ci mbooleem njabootug sëriñ maam Cheikh Ibrahima Fall gépp rek la dalee kër sëriñ Fallou Fall ba ci kër sëriñ Mortala ba ci kër sëriñ Ablaye ba ci kër seex Sérif Assane waaye ba ci kër sëñ Abdou Sakkour Fall ku tudd cees rek tudd njabootu sëriñ Abdou Sakkour Fall ñi ngi siyaare njabootam gépp rek di ñaan Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla suñu borom yàggal ko sëñam di Moodu Mbenda yàlla suñu borom yàggal ko waxtaan wi diggante maam Cheikh Ibrahima Fall Thiès ak gàmm waaye di siyaare sunu bunt ci kër sëñ Abdou Sakkour muy Cheikh Moustapha Fall sëru maam Mbène Ndiaye yàlla na suñu borom yàggal ko waxtaan wi sëriñ Mbay dañ koy tënk ci diggante maam Cheikh Ibrahima Fall ak gàmm bismil ilaahi sil qufraani wa sakóor waaye ci barkeb cheikh am di moustapha abdou sakóor bismil ilaahi sil qufraani wa sakóor waaye ci barkeb cheikh yi am di moustapha abdou sakóor sëriñ mbay waxtaan wi dañ koy tënk ci maam cheikh ibrahima fall mi nga xamante ni moom la sëñ tubaa indi woon ci làmbi lislaam ji moo ni woon màggal tuubaa ki njaareem waaye gàmm cees sëñ musaa ka ni leeram nga sar baa cees waaye ku ñëw mu di la ba nga fees lu nit ñuul ak nit ku weex waaye ña ngay boobu fa ngay maxe maam Cheikh Ibrahima Fall nee na ñëw naa caabi mooy Bambey jël caabi ji mooy ñëw naa caabi ci séeréer Bambey jël naa caabi ji ñëw xombal tiji xombali waaye maam Cheikh Ibrahima Fall nee na cees sama ceesa daani bisu penc dinaa yëkkati Thiès région de Thiès ba mu tiim mboolem région yi nekk Sénégal daal ni sama Thiès sëñ Moussa Ka nii leeram nga sar baa ci Thiès ku ñuul mu di la ba nga fees li nu ku ñuul ak nit ku weex waaye ña ngay booba fa ngaay maxe Thiès ku ne xam na ni maam Serigne Fall mi ne màggal Touba tabaski njaareem waaye gàmmu Thiès daan na wax naan biddiw Thiès dañoo am yërmande mooy maam Cheikh Ibrahima Fall nee na Thiès fa laay falee góor yàlla waaye fii laay follee góor yàlla daani buntu bi di sunu borom di fay jaam ñëlëg xasaayun rahmati booba taxawee da ngay jàkkaar ak sunu borom mooy kër gii nga xamante ni sëñ di Fall mu du mbend ci lay gàmmoo di kër sëñ du Sakkoor Fall mu maam Cheikh Ibra ku ne xam na ni mënoo tudd Thiès te tuddoo yi maam Cheikh Ibra Fall muy sëñ Mbayloo borom rey say gileem reere ngaas ngaari ma Samba Mbayloo ji ku ne xam na ni 1892 la sëriñ bay loo jébbalu ci maam Cheikh Ibrahima Fall maam Cheikh Ibrahima Fall yebal ko Thiès ñu dem ba 1895 ñu porté sëñ Touba Pelente 1892 nag ci la sëñ Bay ñëw Thiès ndax ku tudd Thiès tuddoo sëñ Bay defoo loo xam maam Cheikh ñëw Thiès waaye maam Cheikh bi mu ñëwee Thiès dafa dal kër sëñ mbayloo guddi gu ne sëñ mbayloo dina rayal maam Cheikh Ibra Fall gileem ànd ko Baay Ibrahima Thioub ak Cheikh am ya guddi gu ne sëriñ mbayloo dina rayal maam Cheikh Ibra Fall gileem mooy 365 jours maam Cheikh bi mu ñëwee Thiès sëñ mbayloo nekk Thiès maam ñëw Thiès dar kër sëñ ñu dem ab diir bi mu nekkee kër sëñ mbayloo guddi gu sëñ mbayloo dina rayal maam Cheikh Ibra Fall gileem mooy 365 jours sëñ Mbayloo foofu la nii sëñ foofu sëñ Mbayloo foofu la sëñ Moussa Ka waxee Mbayloo miin naa ko ci ak dégg waaye miinu ma ko ci ak gis ndax weer wi mu am kër maam Cheikh Ibrahima Fall guddi gu ne dinaa dégg tibbal leen sëñ Moussa Ka ci bagaani sëñ Mbayloo yi maam Cheikh nekk kër sëñ Mbayloo ñu dem ab diir boolu përi central am na bâtiment bu fa portugais si tabaxoon maam Cheikh Ibrahima Fall dëkk foofu muy këram bi maam Cheikh mu ni sëñ mbayloo gannax iblis dañ maa la jël ah mbayloo gannax iblis yi dañ maa la jël damaa bëgg a bi sëñ mbayloo dem giseeg maam ahmadou baro njegéen soxna séeni bu njegéen di sëtu maam ahmadou baro maa ngi koy siyaare di jàmbaari cheikh mamadou muntaxa sëñ mbayloo giseeg sëñ ahmadou baro njegéen maam ahmadou baro ni ko am naa toolub kër ñu koy wax tokkóor sëñ Ahmadou Borom Njigéen jël tokkooru këram jox ko maam jox ko maam jox ko jox ko sëñ Mbayloo sëñ Mbayloo jël kër gi jox ko maam Cheikh Ibrahima Fall maam Cheikh Ibrahima ni ko demal tibb suuf si indil ma sëñ Mbayloo tibb suuf si jox maam Cheikh Ibrahima Fall ko ah Mbayloo ah ndeke da ngay xol xoral ah Mbayloo ndeke da ngay xoral ni ko kër gi dégg naa dégg naa fi coow coowul weñ kër gi ak dépôt semaine d'affaires fa la xarit bi seen daal def Baye Fall di gàmmoo matul 20 mètres ci kër googu bi mu ko sancee dëkk fa 1904 fa la gaynde ngelóor gi Cheikh Abdou Sakkour faalu moo gën a gaaw ci aju ji taxawaalu kuwaay am na jël ñun am nañ sàkk faal waaye bàyyi Moustapha moo gën junni wàlliyu Cheikh Abdou Sakkour moo tax ji góor ñi góor ji moo tax góor ñi góore waaye Sidi Birahim sàkk faala piré gaynde ngelóor gi Cheikh Abdou Sakkour faalu waaye moo gën a gaaw ci aju ji taxawaalu kuwaay am na jël ñun am nañ sàkk faal waaye bàyyi Moustapha ak Mouhamadou Fadilou moo gën junni wàlliyu ku ne xam na ni 1904 googu kër googu fa la sëñ Abdou Sakkour Fall gane ci suñu nopp ci jigéen bu tedd bu nuy wax soxna Debba Sarr maa ngi ciy nuyu Serigne fallu moom sëñ Abdou Sakkour di ci nuyu Serigne Mourtala moom sëñ Abdou Sakkour Serigne Talla moom sëñ Abdou Sakkour Serigne Bada sëñ Abdou Sakkour waaye sunu buntu muy Cheikh Moustapha Fall ibnu sëñ Abdou Sakkour sóoru maam benn Ndiaye kër googu nag nekkoon kër maam Cheikh Ibrahima Fall. sono debbo Sarr di doom ci maam Bakar Sarr ak jigéen bu ñuy wax kenn Diouf ñu dénk ko maam Cheikh Rahim Fall maam ñu dénk ko ki nga xamante ni mooy mooy maam Cheikh Rahim Fall maam Cheikh Rahim Fall denc ko am ci sëñ Abdou Sakkoor Fall ak cat ma ngunda debbo Serigne Cheikh ngunda maa koy siyaare noonu la maam Cheikh Rahim Fall nekkee Cees ci kër googu kër googu nag la maam Cheikh Rahim Fall ni biddewu Cees du nu am yërmande daal Cees nen naa fi. aas naa fi te dina ko toj tojtal waaye ku ne xam ne ni sëñ Abdou Sakkour Fall moo luti sawaat Madina Fall ak li ko wër ndax booba kër seex la la tuddoon sëriñ Mortala Fall 1951 ba mu toogee xalifa la tuddee quartier bii di kër seex tudde ko Madinatul Munawara gëca njaareem kër googu sëñ Abdou Sakkour Fall fa la ganee ci suñu nopp nekk ci doom ci soxna Debbo Sarr ak maam Cheikh Rahim maam Cheikh Rahim ni kër gi biddew Cees dana am yërmande daan ni Cees fii laay falee góor yàlla waaye fii laay follee góor yàlla daan bunt buntu bi sonam bi sunu borom di fay jaam ñëlëg benn bunt bi mu ngi tim sama kër gii ci mat na faal xasaayin rahmati nee na tax taxawee da ngay jàkkaarloog sunu borom kër googu fële sëñ am di faal naaru maam xali ñang fa séenee gàmmoo noonu ko sëriñ Cheikh jëmbu daan defee sëñ am di faal moo dum benn la noonu la ko fa séenee defee ànd koog mboolee njabootug maam Cheikh Rahim Fall gépp maam ci kër googu waaye dañu woon Cees nen naa fi aas naa fi te dinaa ko loolu bu ndee ba ci kanam dinaa fi ñëw Cheikh Abdou Sakkour moo lul siwaat Madina Fall maam Cheikh nekk ci kër googu ba 1909 mu ni am naa kër waaye awma ay tool yan laman ñoo jiite fii ñu ni ko laman jësëb laman fàndeen ak laman coonaax maam Cheikh ni yan laman ñoo yilif fii région de Thiès ak li ko wër ñu ni ko laman jësëb laman fàndeen ak laman coonaax 1909 nag lañ ko jox toolam yi muy daaru bahri ñu gën koo xam ci daaru bayre fële sëñ am di xadi faal di liggéeylee maamam Cheikh Ibrahima Fall di xalifa maam Cheikh Sirif Assane yàlla na fi yàgg loolu ànd ak wér maam Cheikh gouverneur bi ànd ak ñi mu àndal dem daaru bayre dafa dem ba sësëg jësëb sësëg fandeen sësëg coonaax waaye sësëg njaasaan muy 1026 ñu jël ko jox ko maam Cheikh Ibrahima Fall 1909 maam Cheikh Ibrahima Fall nekk fa ba cent 1915 am ñu ni 1916 daaru bayra googu fa la ko Serigne Touba fa la ko Serigne Touba wooloo maam Cheikh Ibrahima Fall jóge Thiès ñëw Njaareem waaye maam Cheikh maam Cheikh Ibrahima Fall Thiès la bëggoon a dëkk mu ni ñëw naa caapi mooy Bambey tijji jël naa caabi ji ñëw naa xombal tijj naa xombal yi waaye kees sama keesa waaye kees kees Serigne Abdou Sakkour Fall la maam Cheikh Ibrahima Fall nag ñëw Thiès 1909 1904 mu sañ ci kër gi. 1909 mu sañ ci daaru Bahri muy mille mille vingt six cent 1915 am ñuy 1916 fa la ñu wolo maam Cheikh Rahim Fall mu jóge fa ñëw njaareem waaye bi mu ne 15 nen naa fi aas naa fi te dinaa ko toccal waaye toccalu toccalu kees lu sawaat kees ki ni woon donnu ma Cheikh Rahim Fall dama ko doon muy sëñ Abdou Sakkoor Fall wuutu maam Cheikh Rahim Fall 1980 ba 1984 maam Cheikh bi mu toogee sëñ Abdou muy sëñ Abdou bi maam Cheikh Serif Assane bàyyi ko 80 sëñ Abdou nag toog doon xalifa général des Baye Fall ñëw na kees am ku takk ab rajo ab oto di wër yol ab rajo naan xalifa maam Cheikh Rahane moo fi ñëw sëñ Abdou ko woo ko du ma sama sant caam indiwuma ci mii mbaar damaa mën ëllëg doog a ñëw dinaa ko doon dinaa ko doon ba xëy doon ko bàyyi Cheikh Moussa Cheikh Modou Fadlu rek moo ko mas a tax gàmm bu tuddee gàmm xel yépp dem ci njabootu sëñ Abdou Sakkour Fall maam Cheikh nag dem na sëñ Abdou Sakkour Fall nag 80 mu toog doon xalifa général de Baye Fall bi mu toogee moomeelu maam Cheikh Ibrahima Fall dëkk nañ ci Cheikh Abdou Sakkour ànd ak délégation bu am solo ak taawam ba Serigne Cheikh Fall Baye góor naar moom xadiloo Cheikh Abdou Sakkour daan naa wax naan Cheikh xadiloo mooy baayam te baayam mooy baayam bi leen gouverneur convoqué bi mu waxee ak Serigne Abdou Sakkour Cheikh Abdou Sakkour ko du wax ak gone daanu ko Cheikh jugal wax jugal wax ak moom sëñ Cheikh Fall jug sol grand bu bu weex jàkkaarloog moom joxor bi gouverneur sëñ bi Sakkoor ni ko seex waaw góor waaw góor seex ni ko sama fit nga jël Cheikh Khady Lo mooy baayam te baayam mooy baayam sëñ bi Sakkoor nag wax ak gouverneur gouverneur del am beneen suuf bu mu ko bëggoon a jox. Cheikh Sakkoor ni ko li maam Cheikh Rahim Fall moom mu titre foncé dinaa ko delluwaat maam Cheikh Rahim Fall maam Cheikh moo ni woon Thiès nen naa fi aas naa fi te dinaa ko tottal ginnaarug jaboot fa mu gën dañ ko ne cuujam waaye loolu Cheikh Abdou Sakor moo ko firi ndax ndax day Cheikh Rafal booba gouverneur ba ñuy wax Tidiane lii moo fa nekkoon Cheikh Abdou Sakor ñëw taxaw ba maam Cheikh Rayane Fall jëlaat lam waaye maam seex ba mu naan yë yëngu baa ngi ca xël ga booba démb la tey doog a ñëw booba dafa jël xaalis bu bari jox waa Kees ak njabootam pour ñu jëndal ko suuf ñu dem jëndal ko ni ko Fall lii doy na waaye maam Cheikh gisoon na xël ga gisoon na yëngu ba. booba mooy Don Bosco bu fekkoon jënd nañu li maam Cheikh Ibrahima Fall bëggoon kon tey Don Bosco du am foofu maam Cheikh ba muy wax yëngu baa ngi ci xël ga boobu démb la woon tey doog ñëw maam Cheikh ñëw ñëw cees nag ni Thiès fi lay falee góor yàlla waaye fii lay follee góor yàlla daa ni bintu bi sunu borom fay jaam njëlëg mi ngi tiim sama kër gi ci mat na fal xasaayun ramati nekkoon wërale wërale si am Ahmadou Baro njegeen maam Ahmadou Baro dafa génn seen cubaane ko Ahmadou Baro yow koo julee mu texe maam Cheikh dajeeg moom ca ni ko Ahmadou Boro njëgeen sëñ Tuubaa moo ni Ahmadou Boro njëgeen ku mu jullee mu texe sëñ Ahmadou Boro foofu la foofu foofu la fase kóllëre rek ak maam Cheikh Ibrahima Fall muy démb waaye kër gi ci Madina Fall tokkur sëñ Ahmadou Boro njëgeen la woon sëñ Boro jël ko jox ko Mbayloo sëñ Mbayloo jox ko jël ko jox ko maam Cheikh Ibrahima Fall ngi ciy nuyu njabootuk sëriñ Mbayloo sëñ Amdi Loo Cheikh ndax suñu borom dogal na mooy mooy chef de quartier Madina faal waaye mooy xalifa sëñ Mbayloo na maamam ja sëñ Modou Lo Cheikh Cheikh jiite woon Makkatal Mukarram ak Madinatul Munawwara di doomi Cheikh ba noppi jiite chef de ñaari chef de quartier yooyu muy Makka ak Madina sëñ sëñ sëñ Mbaye nag di kenn ci maam Cheikh Rayane Fall di pee ci maam Cheikh Rayane Fall ñi maam Cheikh Rayane Fall seexal ak ñi defar sëñ Mbaye Lo moo ci pee ndax 1892 ba muy jébbalu ci maam Cheikh Rayane boobu sëñ Touba demagul ci géej gi kon ñu ngi nuyu sëñ Cheikh Lo di doomi sëñ Maxtaar di suñu xarit moom sëñ Mbaye Lo waaye di nuyu sëñ Amdi Lo Cheikh Cheikh di chef de quartier Madina Fall ba noppi doon xalifa sëñ Bayloo na na maamam ja sëñ Modou Lo Seex Seef nekk woon nekk woon fële ca fi nga xamante ni mooy Makkatal Mukarram Madina Munawara di Seex Seef tey jii sëñ Amdi Lo maa koy wooyee sëñ Amdi Lo Seex di xalifa maam Bayloo ngi koy siyaare waaye di nuyu njabootu sëriñ Seex Lo wàlliw mu maam Mor Lo wàlliw muy sëriñ Seex Lo Maxtaar maa ngi koy siyaare bu baax a baax ak njabootam waaye di siyaare sunu xarit ba sëriñ Seex Lo borom dina baax moom tamit mi ngi waaj gàmm waaye di siyaare njabootu sëñ Abdou Aziz Fall mu Cheikh Modou Moussa Fall mu yaa bintu jenn sëñ Moustapha Aziz maa ngi koy siyaare mii xalifa euh, sëñ Abdou Aziz Fall fas yéene ànd ak gépp rek fas yéene gàmmoo ci yees waaye fi nga xamante ni Xaadim Madina ku fa ñëw fekk ko fa muy péncum sëñ Abdou Sakkoor Fall dalub sëñ Moussa Abdou Sakkoor ku fa ñëw insha allahu rabbi mboolem suñuy soppee ak suñuy wëlëre ak suñuy am di jàmm ku ñëw dalub sëñ Moussa Abdou Sakkoor di nga nu fa fekk ndax foofu la ñuy gàmmoo ndax maam Cheikh Rahim Fall moo ne woon biddi Thiès doon am yërmande waaye Thiès fa laay falee góor yàlla waaye fii laay falee góor yàlla defar fa sëñ Mbay Loo defar fa Mbay Moodu Mbay Isaa ak Baay Isaa Mbay baayam defar fa Cheikh Ibrahima Sambanaar nekkoon ilimaan yi Baay Faal yi defar fa Cheikh Ibrahima Yaqiin yaa tax ba Cheikh Abdoulaye Ñaxib lam mi ndigal moo ko la gaa yi jiiroo moo ci xëpp tabax na ay kër di joxe ñu ngi siyaare soxna say bata ak mboolu njaboot gépp rek waaye di siyaare njaboot sëñ Ibrahima Sambanaar waaye di siyaare njabootu sëñ mu Mbodj ak mbooleem murit ya nga xamante ni ña nga Cees njabootu sëriñ Saliou Touré kon ñu ngi sant ñëpp euh, di gërëm ñëpp di ñaan bu baax a baax sëñ Fallu mi nga xamante ni mooy xalifa sëñ Abdou Sakkoor ndax ku ne xam na ni kër googu fa sëñam di Amdi Fall mu du mel di gàmmoo waaye ku ne xam na ni daa daaw bi sëriñ Moustapha Abdou Sakkoor yëkkati ay million jox sëñ Fallu sëñ Fallu jël million ya bi mu xëyee ne nañ ko ko yóbbul sëñ Amdi Moodu Mbenn magam ju baax ji boole ceeg titre foncier këyitug Madina Fall loolu bay Fall yëpp ñoo ciy sant sëñ Fallu mu sëñ Abdou Sakkoor ndax këyitug Madina Fall muy titre foncier gi ci loxol sëñ Abdou Sakkoor Fall la nekkoon sëñ Abdou Sakkoor bàyyi ko fi 84 nag këyit ya nekk ci loxol sëñ Fallu muy ab taawam sëriñ jël jël jël këyit ya ak millions yu bari yu ko Cheikh Moustapha jébbal dem jébbal ko sëñ Amdi Fall Modou Mbenn xalifa général de Baye Fall kon sëñ Fallu daa wane aw yoon kon ñi ngi ñaan sëñ Fallu mi ngi xalifa sëñ Abdou Sakkoor jëf mu jëf jëfal ko mboolem Baye Fall yi mooy titre foncier ak dina Fall jël ko boole ceeg millions yi Cheikh Moustapha muy caat sëñ Abdou Sakkoor jébbal sëñ Amdi Modou benn ci at génn sëñ Amdi incha fa la gàmmoo ak mboolem njabootug euh, sëñ Modou Fall mbenn gépp rek waaye ñi ngi sant ñëpp waaye di gërëm ñëpp rek di ñaan kàddu yi lépp lu ci jub rek sëriñ bi la waaye lépp lu ci dëng dong bi xew bi la sëñ Mbay fi ñuy daaneelee nag mooy dafa am lu xew jamono jii amal Cheikh Omar Diagne amal yoonu murit amal gouvernement Sénégal ak yoonu Mouride waaye loola dama dama ci indi ay leeral une bonne fois pour toutes Cheikh Bara Ndiaye di njare njare dégg naa mu wax ci kàddu yi xam-xam mu teg ko ci xam-xam ndax déggul tëll rek ni damm na mu teg ko ci xam-xam ak fit ak ngor ak lu mu xam nit bala ngay dem bay wax dara da war a maîtriser li ngay wax waaye Cheikh Bara bi ma ko seetaanee xam ni kii asgor la ab jullit la ab murit la li muy wax maîtriser na ko moo dara boo xewetee képp koo xamante ni yaa ngi ci yoon wi bala nga yëkkati ay ay kàddu na nga ci gëstu ba xam ci lu wér ba xam ci lu wér loo xamante ni boo ko indee ci taabal yi jullit yi man cee man cee jariñu damay ñëw ci parce que président Bassirou jomaa Diakhar fay moom laa tuddee jàmm maa ko tuddee jàmm ngir man mbuur laa dëkk yi mbuur la ba ma daggee mbuuray naaj dana dañoo bokk Petite Côte ma xam séeréer jom ji nekk ci ñoom ak ngor ji nekk ci ñoom sëñ Cheikh Fall bàyyi góor dañu woon li ngeen bëgg yëpp sëñ Bàmba am na ko waaye ngor moo jafe te maam Cheikh Ibra Fall dañu woon ngom seen fay jub fooy jëfe man man Ibrahima Fall maa leen fay ñu ne ko Fall mu ni ngom seen fay jub fu waay jëfee man Ibrahima Fall maa lay fay kon président Diomaye Diakhar fay maa ngi lay ñaanal yan bi yàlla na oyof ba man ni mbaxana li tax ma jàpp ko dañoo bokk Petite Côte mu jànge mu juddoo Njagañaaw jànge lycée Demba Diop fu ma miin dëkk ak Cheikh Ibrahima Mbacke borom ñaamar bi doomi Serigne Mbacke Madina ñaamar nekkoon géntub Cheikh Mouhamadoul Moustapha Cheikh Moussa yebal fi sëñ Mbàkke Madina sëñ Mbàkke Madina bàyyi koo fi yebal fi doomam suñ Ibrahima Mbàkke ñaamar moo président bii ay way juróom mooy président Diomaye Diakhar fay way juróom wu jigéen ak way juróom wu góor ndaga ñaaw lañ dëkk ndaga ñaaw ak ñaamar benn lañ ñu dëkkandoo Cheikh Ibrahima Mbàkke borom ñaamar kon man xam naa président Bassirou Diomaye Diakhar premier ministre am Ousmane Sonko di ku baax di ab jullit am fu mu bëgg àggale réew mi kon maa ngi ñaan ci barkeb Sëñ Tuubaa dooley maam Cheikh Ibra Fall fii nu bëggal ak àggale réew mi yàlla na suñu borom defal leen jàmm ci barke bi sëñ Tuubaa doolay maam Cheikh Ibrahima Fall ndax ñoom santu nu kenn muy contre benn kilifa diine ndax ñoom bi mu toogee lim njëkk a def mooy ñëw ci Cheikh Mamadou Mountakha Cheikh Mountakha xool ko bëti yërmande yi nga xamante ni moom la Sëñ Mouhamadou Bassir daan xool ñam dajaloon kum ko mës a xool sa aajo faju yëkkati kaamil alxuraan jox ko yëkkati sidaara siyaara jox ko mu dellusiwaat fi sëriñ gi defaat ak noonu ñu jub màggal président ñëwaat sëriñ gi defaat ak moom noonu premier ministre am ñëw Cheikh Amadou Mountakha def ak def am am noonu kon dañuy doog a tàmbali ñu dénk leen réew mi ngir ngala yàlla nañ leen bàyyi ñu doxal waaw ñu am jom lañ ñu am fit lañ ñu am ngor lañ ñu am diine lañ muy président moom mën naa koo seere ngir séeréer du war barke sëñ Tuubaa bu sin ko mëndoo fen fomaak daan la wax naan gor bu waxee mu deñ ndee lay dox la séeréer du war waaw maa ko di jàmm borom jàmm borom jom borom fit borom ngor muy président Bassirou Diomaye Diakhar Faye kon maa ngi koy ñaanal xaadim Madina Baye Fall ñu bokk Petite Côte ma dëkk mbuur di doomi Mbour nga dëkk Njagañaaw nga jàngee sunu dëkk lii lycée Demba Diop ba ni nga demee université Cheikh Anta kon ñu ngi ñaan dëkk bi ñu la dénk muy Sénégal yal na yàlla defal la jàmm ci barke Sëñ Tuubaa dooley maam Cheikh Ibra Fall Cheikh Bara Ndiaye kàddu yu sedd na rafet na lool maa ngi ñaan yal na yàlla defal jàmm ci barke Sëñ Tuubaa dooley maam Cheikh Ibra Fall allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana muhammadin Serigne Mbaye 24 acte yàlla na suñu borom yokk ci barke Sëñ Tuubaa 28 jërë ngeen jëf.